asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñi suivre ci Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar ak ah, fu ngeen mën a nekk rek bégge naa leen xam nga di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ak tamit suñu mbokk LB yi ah, parce fekk nañ leen fii tey te yaale leen micro du mën a ñàkk tey nag ñu seet suñu benn grand boo xam ne olof ne na ah bi tax ak xati ay mbokk lañ ndax la ko waral mooy ñoo bokk bi yeel parce que bu ñu nee Lamine Samba ci wàllum média defe naa ñun ñii ñëpp bu ñëwee après daan nañ ko déglu xam nga di am lu muy def ci ñun ba yàlla def tey ñu fekk ko ci milieu bi mu nekk koo xam ne mën nañ ko tuddee royukaay ci ñun parce que yemul ci micro ba kese kat bool na ca jaay ay xar gis naa ko sa defe naa muy jaay ay jiin ak yu kenn xamul mu mel daal moom la Ismaïla loo woyoon ca bawal bawal ya moom daa xam ne moom loolu la jël di ko utiliser grand bi maa ngi lay bëgg di lay ziar. mais Babacar maa ngi lay delloo ziar am yow damay kontaan ci yow chaque fois parce que li may wax moom ku yokkul yaa wàññi te métier bi ku ci nekk yokk xam nga ku ci nekk wàññi. may nuyu may nuyu internet yëpp ñi nekk ci réew mi ñi nekk ci bitim réew di leen ziare kenn ku ci nekk ma lay jox sa wàccuwaay di wax bisimilahi rahmaani rahim. am na solo grand frère euh, Lamine Samba balaa muy ñëw carrément sax ci Lamine Samba ak lamb jëg yooyu damay ñëw ci Lamine Samba ci boppam Lamine Samba ku ne xam na ne Fass la juddoo. yaa ngi dégg nekk doomu Fass mais Lamine Samba ci média la ko nit ñi xamee wala ñun bokk ci lañ ko xamee mu nekk ci média boole ko ak leneen ak leneen Lamine mën nañu dikkaatal ci boppam ci lu gàtt. jafe waaye day yomb ci résumé ci ga wax nga ko léegi Fass laa juddoo Fass laa yaroo Fass laa màggee waaye parcelle laa fekk baax xam yooyu day am juddu yaru waaye fekk baax parcelle ma fekk fi sama magu papa bu mbokkal ndey baay ñu nekk fi moom sax moom ma xiir ci commerce ndax man bi ma doon ñëw fi antiquaire laa woon. Kora kenn dàqu ma koo defar ci Sénégal ma koy doon defar mais ba mu doon ñëw fekk mu papa di jaay quincaillerie léegi nag quincaillerie bi lu ci bari man maa fa doon nekk xamee naa matériel plomberie xamee naa matériel électricité xamee naa matériel peintre xamee naa ciment xamee naa fer xamee naa yëpp ci foofu laa ko waaw lépp lu jëm ci yére wax nga ko lépp xamee naa ko ci moom nag ci foofu laa ma tàggatee ci euh, commerce ci foofu nag laa bëggee commerce xam ni commerce neex na jënd ak jaay neex na daal dama daan gis ni paa bi da ci daan am weccit quoi da ci am xaalis quoi léegi nag foofu la ma virus bi toppee ma continuer noonu bi kooraa yi demee ba doxatul après ma viré wu ci commerce bi mais rëccuwuma ko tamit parce que loolu moom ma forgé tey ba lépp loo xamante ne nii tey wàllu jënd ak jaay la ci lu dagan damay jënd damay jaay. mais bu ma la laajee noo def ba ñëw rajo. Jo Maroon xam nga bu RFM. waaw maa ngi koy déglu bu baax Jo euh, président commission culturelle ASC Doole man man ci mouvement nawetaan laa génne ci gàttal. Euh, xale bi tey di euh, xaadim yaayam sama troupe la nekkoon doon fecc te maak yaayam ñoo bokk ndey ak baay ma yoroon section culturelle benn ASC bu ñuy wax ASC Doole ASC Doole moom amul ku ko déggul ci culture jël naa. cinq fois zonal jël naa trois fois départemental jël naa deux fois régional représenté naa toute la région de Dakar si phase national yi doon am Ziguinchor ci boobu temps deuxième la ñu jëloon benn exemple rek laa lay jox Pape Moussa mii di fecceel Youssou man maa ko jëkk ne ko nii la ak nii la ak nii la nii la ñuy feccee nii la ñuy waxee nii la ñuy taxawee ci kaw seen bi loolu lépp amee papaam Buli Sonko ma ko ñaanal yàlla ko yàlla yàggal ko fi ak yaayam Oumy Sène xam nga Oumy Sène. Sène damay dégg tur moom lu Youssou Ndour Mbaye Gueye Faye di wax Miss Karaté. Miss Karaté waaw ca way wa. waaw ñun ñu ko doon wax Oumy Magie ndax da daan publicité Magie moo jur Pape Moussa Sonko mii dañ ma doon wax ne comme ñoom seen famille yëpp dañu fekk ay euh, Miccu Sonko ñëpp xam na ko mi daan ànd ak euh, Fatou te génn àdduna ay Ndey Fatou ay ñoom Awa Sonko ñooñu ñëpp dañ daan fecc mais Sorano lañ nekkoon mais man dama dama daan dama leen daan jël di leen fecc loolu nawetaan bi ma ñëwee pa bu li Sonko ne wax pa Moussa daal dama préféré mu jàng préféré wu moom mu fecc mais comme pa bi daf ma bëggoon mu mujj bàyyi pa Moussa muy fecc mu dem ñu dem Ziguinchor ñu tab ko mu nekk meilleur danseur du Sénégal pa Moussa sama loxo yi laa ko formé xanaa jommi nga. waa ba tey bu ñu continuer léegi loolu leeral nga ko dañuy ñëw nag ci côté làmb ji wala tamit sa sa fi ngay liggéey parce que xam nañ ne foofu làmb yaa ko fa yore yaa ngi dégg muy groupe Futur Média tey ñu xëy xëy gisaat la ci beneen facette boo xam ne sax xëy na ñi la xamuloon mais ñun yàgg nañ la dégg ngay présenté journal def revue de presse lan moo tax gaa yi xëyaat rek indiwaat la ci journal bi indiwaat la ci revue de presse bi. lamb ji dafa naroon a dee de la <laughs> lamb ji dafa surxa faatoon de. faat woon fan. yàllaaw. fii ci réew mi wala biir Futurs Médias ah xawoon na fee sonn. ak mbas mi ñëw. mbas mi waaw. léegi man est ce que dinaa nangu Youssou Ndour di ma fay te du ma ko amal njëriñ. xel proposé wu ma leen je ne suis pas demandé mais ñoom ñoo xam ni biñ may jëlee Walfadjri journaliste la ñu recruté ñu indi ma delluwaat ma ci rédaction yi est-ce que comprendre parce que kon sinon leen amal njëriñ parce que am na benn moment boo xam ne Futurs Médias lamb rek laa doon def parce que instant boobu lamb saturé na fu nekk lañ doon dem ma man ak yéen Kaolack Thiès Fatick Ziguinchor fu nekk doono am temps pour dugg ci rédaction yi mais bu lamb fii laa koy waxee bu affaire yi lamb ji ñëw damay delluwaat ci lamb baag rédaction. déedéet bor yi mën ta ànd ma ci lem. doo ci génn sax. kon loolu am na solo leeral bi mais groupe Futurs Médias boobu gis nañ leen ak GFM Entertainment ci Balla Gaye Eumeu Sène ñu def ko benn yoon ñaareeluñ ko ñu xëyaat gisaat leen tey ci rëg-rëg ak ki nga xam ne moo di guy gi lan moo waral bo ngeen defoon ko toogaat at yu bari door koo dolliwaat dafa neexul woon wala lu xew tey. xam nga souvent Sénégal li koy yàq mooy dañ koy laaj loo xam ne Sénégal Entertainment Group Maaw Cissé mooy coordonnateur même li nga may laaj ne bu ma ci xamoon sax duma ma ci wax nga baal ma quoi Lamine euh, Lamine mii xam na ci dara et souvent loolu mooy yàq Sénégal dañ lay laaj loo xamante ne yow du sa domaine même xamuloo ko sax nga bëgg a caa wax léegi nag soo demoon ci Maaw Cissé moom dina la expliquer lépp man daal li ma ci xam mooy woo nañ ma ma ñëw ñu ne ma ñu ngi taxawal Reug Reug signé nañ ak moom ñëwal nga présenté ko bi ma ñëwee maa ngi fekk ñoom Lamine maa ngi fekk ay journaliste yëpp te dama présenté maag ñoom ñoo demandoo ñu taal seen oto dem ma taal seen oto négociation même lu ma ci xamoon sax du ma ko wax fii parce que su ma ko waxee maa ngi empiété wu ci loo xamante ne nii nekkul sama responsabilité. kon foofa duñ ko jéggi dañuy continuer waaye leen rek bëggoon naa ko ci cof mooy que ni tey combat bi ñuy déclaré ba Sénégalais yëpp di ci wax muy dëgg rek guy te boobu combat noo tant que Lamine Samba buy xool làmb neex na de neex na de. xam nga daa am bon am trop bon signature guy gi ak regret non guy gi al waxaala xanaa xamoo gars yi wax naan euh, nu mu tudd regret du wax par force dana wax contre guy gi yow guy gi ku mbër moomu fi bëree rek wax loo na la moom mi wax loo Ama Baldé ba ñu xeex ci kaw plateau yow xoolal loolu énervé nees énervé guy euh, nu mu tudd Zos énervé Boy Niang. grand ba tey combat bi du ma si jóg yow bu ma ko doon analyser en tant que connaisseur parce que xam nga ñaari mbir yi bu baax a baax xam nga guy xam nga Reug Reug te xam nga laam ñoom ñaar. ñoom ñaar analyse ci naka. parce que dafa am ñoom damay dégg ñu naan non guy war woon a jël Reug Reug parce que Reug Reug moo dàq bëree parce que mba mbapat lay bëree ñu ne Reug Reug mënta daan guy gi parce que guy gi mbër mu dëgër la yow. xam moo ma gënal pomme kuñ ci yóbbu tribunal boo amee avocat bu baax doo fanaan mais man d' accorduma ni euh, Reug Reug mooy favori je ne accord li li guy gi def ci lutte avec frappe Reug Reug defagul genn wàll gi kaa la ñu waxante dëgg te yàlla rek a tax ñi guy gi bëreel ci làmb Reug Reug bëriwul ak ñoom ci làmb ah man de xaw ma maa juum xaw ma juum ma cinq combats am de laa gis lutte avec frappe ñu ngi naan treize ah man de gisuma treize lamin Lamine gindi ma. waaw non def na ko sax. treize. def na fii ci fii fii fii Ndakaaru fii. lutte xëy na non waa xëy na combat yi xam nga li nga wax mbër yi xëy na ñoo tolloowul niveau comme mbër yi mu bëreel ak mbër yi rëg comptabiliser ay mbër yoo xamante ne nii xam nga tey boo xoolee ba ci palmarèsu Balla Gaye ba ci palmarèsu Modou Lo ba ci palmarèsu am na ci mbër yoo xamante nii wóor na yàlla boo leen waxee sénégalais yi xamuñu leen am na moom ñàkk critiqué wu benn bët mais dama ne xamuñu leen mais man Reug Reug maa ngi commencé comptabiliser ay combat Elton Gris waxal tur bi ah. bëri na ak junior. Balla junior ak kan. ak Jordan waaw. Jordan ak kan ak ak. Bébé Saloum ak cinq combats yooyu laa jàpp ni ñooñu non man laa jàpp ni si la dugg ci lutte avec frappe ndax bi muy dugg ci lutte euh, avec frappe. bàyyiwul woon complètement lutte simple danaan daan sàccantu bu cofee ñëw bëre benn combat delluwaat gañ sa muun yi mais bi mu stabilisé euh, bi mu stablé cinq combats la bëre ci arène bi guy gi comptabiliser kan la bëree lul ci lamb bëri na ay grand combat de yu mag a mag bés bés ay bés yu mag la am ay bés yu mag la am man bu dee favori man guy gi mooy sama favori loolu leer na guy gi mooy favori am léegi lamb ji ñu doon wax dafay dee mu ngi xam nga ne ci ay jafe-jafe yow sa wax nga ko léegi ñu xëy gisaat ku mel ne suñu papa Gaston Mbengue ñu koy nuyuwaat en passage mu dellu siwaat ak yeneen nit dellu siwaat ay Vox Arena ak ñeneen ak tamit ñi fi nekkoon ñoom Pape Abdou Fall léegi ni ko laay doon te mu ngi ci ndog-ndog affaire yi min dafa commencé waat jax mais est-ce que xel war naa mën a nangu ñun bu ñu goree xel war a mën a nangu état dem démerder 32 milliards dugal ko ci. arène nationale ñuy bàyyi lamb ji di suux. normalement. xel moru ko nangu moo tax gars yi ñu jógee woon doon dañuy wan état bi ne ko ah, li ñu defal nañ la ko delloo état bi aussi tam war warta seetaan dugal 32 milliards ci lamb di bàyyi lamb di de ñu naan arène bi baaxul ak waaye arène bi liiwul ak gis nga tàmm mooy laago tàmmoon nañ stadium Iba Mar Diop tàmmoon nañ Demba Diop tàmmoon Léopold Sédar Senghor mooy loolu mais comme léegi fermé nañ ko rap xoolal bëgg bëre bañ bëre. fii la ñuy ñëw force doone mbaam. retour Gaston beeg noo ko gisee. ah papa xam nga lu tax affaire du doonul événement Gaston moo tàmbu bis yu rëy est-ce que comprendre gis nga tey bu ko Lamine tëggoon mbaa ma tëgg ko combat yooyu dañ naan la ilaha illallah waaye événement bi événement bi mais dafa tàmm combat yu mag moo tax buzz bi mu waroon sax am sax amu ko parce que Gaston c'est Gaston. mu saxaar ma ñëw Papa Sow Siteu. oh bu arbitre sifflé man. ak yow ak Lamine ak reporter yëpp dinañ ne jour temps 18h45 l'expérience face à la jeunesse. <laughs> am na wax ne Papa Sow na combat bi gaaw moo ko arrangé ñu ne Siteu combat bi lu mu gën a yéex moo ko gën a arrangé. sa gis mbër mu waaxu Siteu génn si. Siteu day tarkindaa la de waaye Papa daa mën a song. combat bi ko Sa Thiès waaxoo waaxu bu métti boobu fa Sa def na fa benn faux boo xamante ne nii nañ waxtaan diggante yàlla lu ne mënoon na faa am seetal rek mbër yi waaxu Siteu même buñ ko daanee génnuñu si am déet mbër mbër kenn du ko waaxu Papa Sow nag dafa nekk ndaama loo xamante ne ni man maa ko tuddee ndaamal Gosaas xam nga lu wax ndaama yëgul njool mooy Papa Sow. tegaatal combat Papa Sow ak nees tegaat ko nees 140 kilos lon ko large ko guy ko filaawoo ko Papa saw ndaama dugg ci gardam daf non dafa dafa tuuse nees xam nga erreur am mooy lan bi muy dem dafa yaakaar ne nees kaawote na fii la ko dóor dafa yaasaan nees kaawote na nees bi mu daanee Papa Sow jibile na fii la jàpp wax nga dëgg grand guy gi ada ama ak ak ak ak Modou Lo <laughs> boobu ah amul lu xam lu tax combat boobu man du ma ci wax baal ma baal ma Modou Ama xam nga man xamul lu tax ma akal boobu combat dafa indiwaat derbi Pikine Parcelles Eumeu Sène ak Modou Lo lu mu lay fàttali. Eumeu Sène Modou Lo ah boobu combat doyoon na waaw. derby Pikine ak ak ak Parcelles je pèse bien mes mots ba li ci garaaw ci combat boobu laa lay wax Ama Baldé kañ la topp Modou xam naa daal daa mel ni yàgg na mel ni ku bëgg bëre ak moom lu naan ko jotagul jotagul jotagul jotagul daan naa la mbapat ki naan ko daanoo ma ba ma la daanee ba ma liwee ba ma la leew déjà ñoom ñaar compte à rendre wujje bu garaaw moo am seen diggante. bu dee maye chance Modou Lo moom maye chance parce que moo teg couronam Ama Baldé ñëw bëre ko yegg na fa wala yeggu fa ñiy wax amaa Baldé yegguñu fa dama lay nittili benn affaire dama mës dem si Matar Ba ministre des sports ma ne ko Matar ñu bëri dañ may wax ne ma yow sama xarit nga président Macky sama xarit la mu ne ma Lamine. ma ne ko naa mu ne ma santal yàlla parce que comme ñu ngi lay tudd président de la république di ma tudd man amoo ay xaritu njoogaan waa waa ku bañ yegg ba mel ni Ama Balde bay bëre combat royal yow yeggoo lan la gaa ñu bëgg Ama Balde bu daanee Modou mooy nekk roi des arènes bu ko Modou Lo daanee ñu nekk vice vice roi kan la bu nekkoon dañuy takkal me d'or door Lo jour boobu dañuy takkal médaille euh, euh, d'argent Ama Balde waaye xale ba yeggul am na lu mu bëgg a wane. waaw am na lu mu bëgg a wane waaye am na danger bu nekk ci combat fu danger bi ne ci combat jërëjëf ma wax la ko wala ah, non waxal déet gars yi dañoo bëgg a xam xay leen ma ba pare <laughs> garab dimbali internet yi nga wax leen danger bi fu mu ne ci ban roq la Ama Balde kuy magam Zil Balde déedéet ñëwal géej Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 lu ko teree neraw. waa des waaw bu ko amaa jëlee fu bala jëm. waaw. Eh, grand wax nga dëgg est-ce que xam nga ne li nga wax ni lu doy waar la Ama bu nekkee roi des arènes dina bari ñu ci. ma seetaan benn sina bu Balla Gaye Ama Baldé nekk ci komba ah, ci otom mu ne combat moom Balla mu ne komba bi du komba Ama Baldé moom kombaam la parce que bis bu Balla Gaye amee combat Ama du nelaw. du añ du reer du ndékki dégg nga ma. maa la dégg. xam nga premier danger laa la wax dama la ne Ama bala mooy magam waaye bu amaa jëlee roi des arènes fu Balla jëm. day moom kay day da. dafay jógee ñëw ne ko grand maa la may roi bi. ko te téye ko sa. téye ko sa kër maa la ko may moo fa mën a ne mais xam ñoom ñaar duñ bëre ci àdduna. waa léegi bu Modou Lo daanee Balla ñaari revanche lay am daan rakkam jëliwaat ki mu daan ñaari yoon. mais mbër yooyu tey am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci suuf tamit mu mel ne ñu ngi leen bëgg a fàtte Mourou Anta bu Thiès Moussa Ndoye bu Yarax Yékini Signor ay forsa ah mbër yooyu tamit dafa am lu ñu def ama neex su may lim du ma fi jógee xam nga ñooñ tamit gaa yi dafa mel dañ leen a bëgg te dafa mel ne ñooñ dañ ci bokk ah, Lamine waaye làmb paanoon promoteur rek ñu waxante dëgg mais ñooñu ay ñuy neexal làmb lañ làmb daa paanoon promoteur rek mais Yékini Signor saa Thiès la Yékini Senior Garga Mbossé. Hmm, man am na combat bu ma xam de dara. salaamaaleykum wa rahmatulah. non man xëy xaw ma noo fexe ba wax loo ma lu ma. Kara wax ma li nga xam. non non non ma takk sama masque rek jox sama jox. Sa Thiès Garga wala Sa Thiès Yékini Senior. yi kon ñu tàggoo fii hmm, ba ci kanam.